Innanzitutto mi dite che mi scuso con voi che non ho ancora imparato bene il francese. Nee na premier mi-temps bi football ñu dara lu baax mais deuxième mi-temps bi xaw na tere sax quoi mais mu ngi féliciter vraiment AS Pikine que def nañ match bu baax quoi. parce que bëri na ay jeunes yoo xam ne cette année ci mooy mooy seen première année ñu football euh, première division aussi ak public è mel nii donc xam naa loolu moo tax euh, ñu am ay tuuti tiitaange quoi. premier mi-temps bi dañu wane dara dara baaxu ci mais ñaar ñi bu ñu duggee affaire bi ero meravigliato come mai nel primo tempo giocassimo mais mu ngi door entraîner équipe Sénégal néna Sénégal mom yag na len xam yag na len suivre donc techniquement ak physiquement dañoo bax peut-être diga xaw a bu djumul moy seulement tactique moy xaw a quoi mais tey jii lu mu gis équipe Pikine bi donc pour mom dara manqué wu quoi. dafay sant. bi mu bi mu Sénégal amna yenen équipe yu ko bëggoon mais depuis mu xam président Mbaye Diouf donc. mu commencé waxtaan ak moom ba commencé entraîner équipe bi gis staff bi gis groupe bi mu nekk loo xam ne vraiment rëccu si dara quoi li mu ñëw li mu ñëw MPC quoi. nee football c'est universel donc du jarul sax ay wax ju bari quoi donc bu commencé wax tuuti rek bu doon même bu dee bu liyaar sax gabooy nañ comprendre quoi football c'est universel quoi. Eh,